المصطفى نويت ما يجدد de télévision culturel et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhoul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmo yi cérémonie yi TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bokki Sénégal ak biti senegaal ñu ngi leen di nuyoo nuyoob jullit asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla nag di julli ci yonent bi sallallahu di jaarale cant googu moom sunu borom fi mu jaarale xéewal gi wa amma bi ni amati rabbika fa xaddis yàlla mu ne si ma leen xéewalalee ngeen sant waaye namm na ci sant gi ngeen jaarale cant gi fañ jaarale xiiwal gi kon xiiwal gii ñuy sante yàlla tey ñu ngi koy jaarale ci buntam muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag di ko teg ci loxoy ñan muy sëtam bi di Cheikh Chérif Omar Aydara ak mbooleem surafaa yi nga xam ne ay mbokkam lañ ay léppam lañ toogandoor ak moom ci jotaay bi dañu guddal tax xaw naa guddi dañuy jublu ci jotaay bi jotaay bi jotaay sant yàlla la kon li ñuy njëlbeenoo mooy présenté leen ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi méngoo jotaay bi ŋànk jotaay bi ñooñu ñooy ñan ne nañ ku lakk mburu tudd dëkk wa aatul buyuta min abwaabiha kon ku taxaw ci dëkk di nga nuyu borom dëkk nuyu imaam kon suñ njiital ci nuyoo ñu ngi koy teg ci loxo imaam bi muy sëriñ bi toog ak loxo borom dëkk bi nga xam ne moo ŋànk mbiri dëkk bi ñu ngi leen di présenté njëkk ci boobu mooy chef de village bi di moom mi nga xam ne tey moo am ay gan wala dalal ay ganam ka ca topp mooy honorable député par Seydou Diankon dafa am ngant ñëwul waaye nag adjoint maire am ñëw na muy Ahmadou Mané ñëw na ci turu commune Toubacouta yépp kañ cay toftal mooy monsieur sous bu Toubacouta du am ma tay moom it teew na ci jotaay bi ànd ak délégation bu am solo ka ca topp mooy monsieur le ministre Abdoulatif Coulibaly di maire de Sokone moom itamit teew na ci jotaay bi ka ko teewal mooy kan muy docteur Moustapha kenn ànd ak délégation bu am doole ñu bokk jóge Sokone ngir bés bi ki ci topp mooy kan mooy monsieur le président de conseil départemental de Foundiougne muy alaaji Moustapha Mbaye Cheikh Abdou Wahab Guèye moom itamit gis nañ ko teew na ci jotaay bi Chérif nee na brigade gendarmerie bi Sokone amul seen fay mën na wax ne depuis démb ba léegi ñoom itamit équipe bi mu ngi fi di taxawu mbiri ni mu ware famille Chérif Omar tamit ñëpp teew nañ muy doom yi góor ak doom yi jigéen jarbaat fépp foo xam ne rek doomam nga njabootam nga rek shérif gis na la ci jotaay bi waaye tamit ñi nga xam ne ay goro lañ ci kër gi jëlee ci kër gi walla ñu mayee ci kër gi ñoom ñépp teew nañ ci jotaay bi pour ànd ak shérif ci bés bu màgg bi ak guddi gi ñu jublu muy guddi gu màgg muy guddi gu nabi sallallahu alayhi wa waa Sokone naka noonu ñu bari teew nañ ci suba gi teew nañ ci ngoon gi sëriñ daara yi tund wi teew nañ macha allah ñoo doon jàng alxuraan ji ci suba ba léegi waa Dakar yi kenn desu du xarit yeeg ñëpp teew nañ ci jotaay bi Casamance Ziguinchor Mauritanie ñëpp ñëw nañ waaye kii nga xam ne nag moom doom la ci kër gi mbokk la xarit la lépp la muy Cheikhou Touré di délégué de quartier bu Médine ci Sokone moom itamit teew na waaye ah, ak taxawaay boo xam ne taxaw bu rëy la ci bés bi boo xam ne def na ko ci bés bi ñooñu ñooy ñi nga xam ne taxaw nañ ci bés bi teew fi ngir kan ngir Chérif Omar ngir kan ngir maamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir alquran ngir lan muy kalimatul xaq muy laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon ñii dañoo ñëw ngir yàlla kon nag ku ñëw ngir yàlla sérif dina la wan na la ñëw nga ngir yàlla mu ngi ñaan nag alquran jiñ fi jàng ci suba ba léegi ci suba ba léegi ngir la bu kenn dem fenn na ñëpp toog xaar ñu ja xatmu kaamil boobu mu ñaanal jaami yàlla yi ñu doog a yeweeku waaw Chérif nee na xaritam magam doomi ndeyam léppam muy laaj jàmme nee na gis na ko ci jotaay bi mu ngi sant yàlla kon li ñuy def rek mooy jublu ci ñi nga xam ne ñoo amee kàddu jotaay bi ñoo jublu ci ñoom ñu joxe seeni kàddu buñ paree ñu doo ko jox na kilifa jotaay bi mu gërëm sant ñaanal taalibe yi kon ki ñuy jox mooy kan mooy chef de bi muy Seexu Siise moom la ñuy jox kàddu mu dalal ay ganam laa ilaha illallah laa yàlla rek mooy buur seydina muhammad rasulillahi xif wa samix di gërman anwaaru ilamaat ay waay fil kainaati ka shamsi fi samaai talaat wasxe wasxe wasxe li madhi nabiyin jalla xaaliqo lawlaahu ma kaanat al anwaaru qad sataat Chérif Oumar Aidara bu dul woon ak samaam yent yàlla Muhammad lawlaahu ma kaana mulkullaahi multaziman dunya uxra bi kullu qad iftutihat Seydina Muhammad mi may way qad kaana nuurun wala lawxun wala qalamun wala samaaw bihi illa wa qad rufiat seydina muhammad mi way wala jinaanun wala naarun jahimu wala arjun wa farjun wala xujubun qad intasabat wala nujumun wala shamsun wala qamarun wala uxuusun zaat wahriya wa ay waay yi leer boo xoolee tant bi xam ne ñii bokk du ñoom ndey ak yi leer boo lee gisee xam ne seen maamay seydina muhammad lépp luy leer ak fu mu leere ak na mu leere lépp ci daraja seen maam Seydina Muhammad la leere wallahi fa kullu min nuurihi mamadul amin rahmanu awjado lawlaahu ma kanatil afaqu qad nudimat amin mujaanal mustafa bi anal amana lana wal kainatu min al anwaari qad muliat ya mawlidal mustafa hayda mahjatana asqaytana min uyuuni minka qad nabat amin ya mawlid al mustafa sharafta masmaana bi xaalid zikra yaxlu isa tuliyat ya mawlid al mustafa farasa kurbatana kasawtana xilaata min nuuri kanta sajat bur yàlla ña ngi lay ñaan yaa mën a maye yaa rabbi afwan bi jaayil mustafa karaman wastur uyubi isal amwaatu qad boysat amin fa inna dahira an xada fi usrin wa asafi mamadul amin ولا شيبي والأيام سبا ذهبت ولم يكن لي في الخيرات من عمل إلى الخطايا على ظهري قد احتملت بور yàlla ña ngi lay ñaan yaa amana may yaa rabbi hablil manaawi ak ñun min ka maxfiratan afis kuruban biha yaa rabba qad nazalat waaye cheikh maam cheikhina cheikh taadul abi ibnu cheikh mouhamad fadal bun maamin way na yonen moo ne ko ahlan bi chahril mawlidi mamadul amin chahru nabi yulam jadi ata bi saadil asadi xayrul wara kookoy muhammad busre hani an ya rabi qad qassaka mawla rafiq bil mustafa ni'ma shafiq mamadul amin kookoy alhaashimi muhammad قد فاتني عثرتي ولا في وعبرتي سيريف عمر نبي دار هجرتي سمام سيدنا محمد موي محمد خير المعد زادا لمن كان ما محمد الامين بتر لمن قد جمع مجموع وقت سياد من قاتل ومن وعد هو الرسول للوراء سيدنا محمد موي خيرات البراء من السماء الى السراء وما سوى ذاك العدد seydina muhammad mi ay way mooy xayrul anbiyaay wal mursalinaay mamadou lamin ah, salaatu wasalaam ala rasulillah di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp tamit nuyoo bi nag ñu ngi ciy jiital son excellence le président de la république Macky Sall ak ramification am jaare ko ci gouverneur ci préfet bu ci sous-préfet di nuyu ñëpp ñoo xamante ni teew nañ ci bés bii di nuyu daayira yi fi ñëw waa ji cité na ko léegi mënuma ci jaaraat mais xam naa ci daayira xalifa daayira ñoro daayira bani daayira kër sambel évidemment parce que fii la nekk ak ñeneen ñoo xamante ni sax bëggoon nañoo ñëw te ñëwuñu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yokk sant bi nag ak gërëm gi ci ñi nga xamante ni ñoo yor kaaraange gi nde comme ni mu ko waxee depuis démb ñu ngi leen fi gis ñu ngi dox yor ko jiital ci brigade gendarmerie bu Sokone ak sapeur s'il y besoin ak euh, ñaari camp yi nga xamante ni ñoo fi lekk muy bu Sukuta ak bu Nemanding seen liggéey ci gox gi gis nañ ko sant nañ leen gërëm nañ leen ñuy nuyu tamit ñoo xamante ni de près ou de loin jàpp nañ pour que bi antu mën nañ cee citer ku ci mel ni Cheikh yi nde dugal na loxoom boo ndox mi xaw a kii na yemba ñëw fii nii jaarale ko nag ci loxo préfet maa ngi sant di gërëm waa dëkk bi gis naa seen taxawaay muy góor muy jigéen genes bi am problème jeunesse bi jeunesse bi gis nañ leen xam nañ ni ngeen taxawoo ñu ngi leen di ñaan yàlla may leen doole ba lii jëm kanam ndaxte kat ndam la gis naa fu ngeen féetoo ak li ngeen di def maa leen di ñaan yàlla bu leen yàlla boole ci ñi jël gaali yi naan dañuy dem wëri teraanga bitim réew gëm leen seen bopp toog fii te liggéey xam ne bitim réew dañoo non doxabul sonn xam ne bitim réew dañoo jeexal société de consommation yéen nag ay jeunes ngeen di ngeen war a investir Europe ku fa dem du pour investissement pour toog lekk la parce que ñoom lépp lu ñu waroon investir investir nañ ko ba pare da ngay toog rek di dund la preuve année que lépp luy koom-koom mu jëm foofu soo xoolee Afrique bi lay jóge di fa dem yàlla indi leen Afrique kon am leen la ak fayda ngeen toog seen réew investir fi doon dara Europe y a pas d'investissement société de consommation lañ ils sont au paroxysme de l'investissement euh, may sant di gërëm tamit euh, ki ñu jox décor bi foofu nag di nga arrière tuuti mais xam leen rek ne li ñuy wax ne feccum liir bu neexee xëy na yaay jaaja jàpp ki nga xam ne yàlla may na ko ba ñu teg ñu ci tànt bu sompie bii teg ko ci dëkk bi suñu xol sedd si lool su mu nee ren fukk yàlla na ko yàlla mën loo junne déwén gis nañ lu mu def xam nañ li muy def def ko roy nag parce que papaam ci ay bant la ko tàmbali woon ba toll fii ñun ñu kontaan ci lool muy Chérif Omar dara ak njabootam sañ ci dafa de rëcc wuñ lañ ko dalalee ndaxte sam papa ko dalal yàgg na lool mu nekk fi ñun xawoon nañ ñoo jafe waaye ba mu ñëwee indi na fi lu kenn xaarutoo yàlla nag fii la ko owoon mu def fi barke bi nee naa leen ne bu ngeen ñëwee gàmmu Chérif yéen nay sàkku si ñun dañoo dëkk ak moom biti tibb rek di naan moo tax saa su ne xéwal bi di baawaat kon Chérif Aidara yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla bàyyi la suñu kanam nga gunge ñu ba ci kanam kanam ñi nga yor nag ci ginnaaw it yal na leen yàlla may wér nga gunge leen ba ci kanam a kanam dëkk bi nag am na ay bëgg-bëgg yoo xamante ni ma nga ca te xam naa su ma ci bëggee dugg sax jarut muy sori ndaxte bu ngeen gisee depuis booba mënuñoo commencé problème group lañ doon am ak ñuy jóg ak dem ak a ñëw man nag. njiitu réew mi maa ngi koy sant di ko gërëm parce que jamono bii ñu tombel ak li xew ci àdduna bi ku mun a maintenir sa réew rek ba wàlliyaani woo jàmbaar nga yal na ko yàlla may mu continuer ci lii mu nee tolof tolof nag du ñàkk soo ko waxee ñu ne la ci jafe-jafe lañ ne waaye alhamdulilahi rabbil alamin ku xamul ne senegaal neex na dangaa génnul ñu ngi ci jàmm bu rëy te yal na yokk ah mënuma d'accord nag nekk benn dëkk soo jëlee tronçon Diaglès ba Karang ma doon benn dëkk bu ñu seppi maag haute tension bi zéro kilomètre la man ne ci kaw tëli bi mun a ñàkk courant loolu de doon na lu ma métti lool te lu ma jaaxal dama dem ba ci kanam sax ma ne xanaa discrimination la may am événement boo xam ne international la média yëpp di teew ñëpp di ko wàlli ngeen dégg délégation yi ñu wax ne ñu ngi jóge Mauritanie ñii Gambie ñii Guinée inci de suite man ba bu ma waree jëf électrification euh, éclairage may utiliser groupe loolu day jaaxal na ma lool. dëkk yu ma wóor yëpp am ma ne ci kaw télé bi haute tension bi jaar sama biir kooku yéeme na maa ngi ñaan nag ku ci man dara nga jàppale ñu ci ndaxte courant moom facteur de développement la année yi ñu toll sax deux mille vingt deux dëkk ba cay saytu courant yéeme na lool. beneen bi ci topp mooy daanaka su ma xoolee samedi ba tey awma ndox mu régulier aw ma ndox mu régulier ndox miñ ma indil mu ngi jóge ci jagle ndox ma li ma wax ka ko jiite ma ne ndox muy yàq bool di yàq kaas ndax du yàq butit président Macky sàll dafa ne dama bugg a def ñombaatu la grenier d'eau du Sénégal mu may dikkee yéeme lool nag mu nekk Grenier ku ñëw fii romb nga ay tuyaux ñu jóor leen ci pont Sokone ba mu war a jóge forage njaay njaay dem ravitailler Foundiougne heure boobu ñun ñu ngi fi te amuñu ndox ñu ngi bëgg nag suñu munee nampal ci foofu ndaxte dem booy may te mënoo am doon na lu yéeme dinañu neex bëgg bëgg nag lañuy ñuy wax waaye xamuñu loo xam ne moom mooy antu xam naa nag jotaay ji mayut ñu développé lépp lu ñu fi buggu waaye ñaari doléance yooyu doonoon la lu ñor waa dëkk bi ñu ngi sant di gërëm ñëpp ñu fi teew di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan yàlla nawet bi ñu dëggmal mu def ci jàmm jàngoro ji nga xam ne mu ngi ci réew mi yàlla génnee ko fi guerre gi nga xam mu ngi ci ñaari réew yoo xam ne ñoo gën a nànk koom-koomi àdduna bi yàlla dakkal ko yàlla def ci xeeti sallallahu alayhi wa sallam doole def ci jàmm ñu triomphe jëm ca kanam jërë ngeen jëf dal leen nag jàmm ci dëkk bi yàlla def so euh, bis bi ñu commencé ko ci bisimillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamina jërë ngeen jëf merci beaucoup ci turu honorable Pape Seydou Diankon ñu ngi nuyu borom dëkku Kër Sambel di nuyu suñu papa suñu nijaay suñu maam muy xalifa El Omar Aydara di nuyu le représentant du ministre muy monsieur Latif Coulibaly nekk maire Sokone représenté ici par monsieur docteur Moustapha Kane di nuyu le représentant du conseil départemental de Foundiougne di nuyu le sous de l'arrondissement de Toubacouta ak son adjoint di nuyu aussi suñu xalifa muy suñu nijaay muy Cheikh Gueye bu Jagle di nuyu aussi le commandant brigade la gendarmerie soo Sokone ak ay ndawam di nuyu daara yi fi teew yëpp ñu jóge ci sous-région ñu jóge ci biir réew mi di képp ku fi teew suñu papa muy El Hadj Omar Aydara di la wax ne ni ko olof njaay di waxe mbonaat bugg na fecc mais amul ndigg li tam wax loolu yow xam nga sa digganteeg sa doom muy El Hadj Pape Seydou mu bëggoon fi teew ci jëmmam ak une forte délégation mais yàlla def na mu am xew-xew boo xam ne c'est national c'est international muy le festival ñoomi Badia bi nga xam ne ren mooy sixième édition ñu tàmbale ko le vingt six le vingt sept mai war koo jeexalee le vingt neuf mai deux mille vingt ci kaw loolu mu am gàllankoor ba tax na tey moom ci jëmmam teewu fi tey parce que am na gan yi jóge ci ay gox goxaan jóge ci réewum Gàmbi ñëw pour war a fekkee bés yooyu mu wax la ne yaakaar a ngi ci yow ginnaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay yaakaar ci sa mën-mën ci sa xam-xam ci sa mbaax ak si xam sa xol bu rafet que tey boo gisee ndaje bi mën a antu tey c'est parce que jàmm moo fi nekk kon jàmm boobu mu ngi ñaan pour yaa ngi xam na yaa ngi ñaan mais nga yokku ñaan pour que jàmm woowu sax fi ba ilaa yawmi diin parce que fu jàmm newul kat dara mënu faa baax xam nañu yenn kilifay diine yi ne ci réew mi na ngeen posé ci yàlla mais ni ngeen posé aussi ci diineel islaam ni ngeen posé ci ni nga xam ne moom ngeen di tetee réew mi pour jàmm am fi jàmm sax si kon mu lay ñaan xam nañ ne am na réew yoo xam ne yëngu-yëngu mu nga fa te xam nañ ne ñàkk jàmm bu nekkee feneen jullit yëpp dañ ci war a dugal seen loxo pour que ñu fay jàmm boobu muy ñaar réew yoo xam ne Russie ak Ukraine te xam nañ ne ñu ngi ci jamono bi ñu walla mondialisation lépp loo xam ne mu ngi dugg ci suñuy réew li si gën a bari mu ngi jóge ci réew yooyu ak seeni ñooñu kon jàmm bu fa amulee daanaka ñun ñii mel na ne amuñu jàmm walla buñ ko amee aussi des na kon mu lay ñaan nga ñaan yàlla mi dara tëwul pour que jàmm dellu ci réew yooyu mais mu law ci réew yépp toog nañu at walla tax daanaka ñaari at mu am mbas moo xam ne laal na àdduna bi yëpp kenn mënu ci dara parce que yàlla mu ñuy woon boppam mais yàlla boobu nag yéen la fi teg ngeen suñuy ngeen nekk suñuy yaakaar nekk suñuy wali wasila kon ñu ngi leen di ñaan euh, suñu papa Omar Aydara pour que ngeen tàllal seen yàlla. yàlla indi jàmm ci réew mi yépp yàlla dakk fitna bi mu jóge fi mu am beneen boo xam ne mbir na boo xam ne bu am importance muy élection législative ñu war koo def ren senegal ñëpp xam nañ ne réew bu ne assemblée député mi ñoom ñooy voté loi nga xam ne ñoom ñooy doxal dëkk réew mi kon ñuy ñaan yàlla élection boobu yàlla may ñu jàmm may ñu wér ak wérle ñu fekkee ko te tal ko mu nekk élection bu apaisé mu nekk élection buy indi jàmm ci réew mi ak yeneen réew yi nga xam ne ñoo ñu wóor kon du ñu jeexal te remercier wu ñu aussi la brigade de la gendarmerie parce que ñoom ñoo yore suñu kaaraange ak le camp d'entraînement tactique de ak le camp de bu Némanding kon bu ñu ci yegsee ci tur honorable Pape Seydou Diankon ñu ngi remercier ñëpp di ñaan yàlla jàmm sax fi suñu papa Omar ñu ngi lay ñaanal wér ak wér ñu ñaanal la gudd fan ñu la aussi xalifa bi nga yore nga dem ba màgget ci mais taalibe yi yàlla def barke ci ñoom def barke ci Sénégal de barke ci mboolem réew mi nga xam ne ñoo nekk ci wetu senegal asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi di kontaan teew fii ci gàmm gi di jiital nuyoo bi xalifa bi sëriñ bi di nuyu daayre yi di nuyu autorité administrative yi sous-préfet représentant monsieur le maire Pape Seydou Dianko commandant de brigade di nuyu taalibe yi di nuyu di sant aussi daayira fi teew yëpp euh, kontante bi lu ko indi mooy ñaari taxawaay moo fi indi benn bi mooy taxawaayu taalibe sëriñ euh, Seybani nekk euh, sama wëlëre nekk sama xarit nekk sama wasila nekk sama jiit mais di fi teewal aussi monsieur le ministre monsieur Abdoulatif Coulibaly maire de la commune de Sokone nekk ku xam kër gi ku miin kër gi ku fi yàgg ñëw mais yàlla dogal ren édition bi teewul parce que si Sokone gi ñu dëkk dafa am ñaari tii suñu fa dal tey rek dafa am suñu benn xale boo xam ne dafa def accident ci moto wàcc liggéey am aussi suñu beneen jigéen boo xamante ne frère dafa nekk ku sës rek si monsieur le ministre monsieur le maire de la commune de Sokone yore commission domaniale sœur wàññeeku mu nekk ay xat-xat yoo xam ne mënuñ koo escomoter moo tax moom mu yebal ma fii nekk ci beneen fàll liggéey bi ñu ngi wax ne monsieur Cissé déglu nañ say doléance ci dëkk bi borom dëkk bi li nga wax ci ndox mi li nga wax ci courant bi incha allah rabi dinañ ko yeggale monsieur le ministre moom mi nga xamante ne incha allah dina def le tout ba mu yegg ci président lépp lu mu ci mën dina ko def ba nga xamante ne ñu ngi ñaan yàlla fii ak déwén ñu fi dalee delsee si gàmmu loolu nekk ay souvenirs yoo xam ne dañ koy fàttaliku. ñu ngi tamit sàkku ñaan ci sëriñ bi dëkk bi ak àdduna bi bari na ay jafe-jafe ñu defal ñu ñaan yàlla yokk kaaraange gi. yàlla yokk koom gi yàlla yokk wér feebar yi fi nekk yëpp yàlla dindil ko fi di ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi lool man ak wér ñi ñëw di ko ziar di tatansi si di ñaan aussi taalibe yàlla may lañu wér tal kattan ñu mën a nekk ci liggéey bi jàpp ci bu baax maa ngi sant euh, délégation bi ma àndal chef de quartier Médine Cheikh Touré di sant euh, sama mag laat jàmme Adama Seck Ousseynou Ñing moo di ñing ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañu àndal ci délégation bi ñu ngi gërëm commandant de bi ci taxawaayam ak waa sapeur pompier ak waa camp bi di ñaan yàlla yokk jàmm ci réew mi di dolli ñaan sëñ bi yàlla yàggal ko suñu kanam incha allah rabi ñuy yàgg ñëw di ko ziar bu soobee yàlla merci beaucoup. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew góor ak jigéen. di daloo njukkal yàlla ak yonenteem ak mbooleem sëtu yonente yi nga xam ne ñoo fi teew rawatina suñu kilifa gi toog muy shérif di suñu lépp di suñu kiiraay ci wàllu dundin ci wàllu gox gi di nuyu it mbooleem gan yi nga xam ne ñoo jokeegoo ci bépp gox bu fasanteku ci wàllu nguur gi ak ci wàllu aada gi eh, di leen di yëgal ne ñun ñu day am nañ mbégte am nañ courage ngir lan li tax ñu teew si fii ci ndaje kañ ci ndaje yonente bi sallallahu alayhi wa Chérif dey ñun liñ ko mën a waxal tey lu yaatu la waaye xeju fi ndax ñun suñu kiiraay la ci lu ñu xam suñu kiiraay la fu ñu suñu kiiraay la suñu nekkee moom ndax man mii nga xam ne maa taxaw di wax ak yéen euh, ñun la yàlla dogal ñu doon imaamu ratib bu sàndiko li waaye ñu ngi wax yi ci turu mboolem ilimaan yi nga xam ne ñoo nekk ci gox gi la waral loolu nag mooy fi yàlla di waxe ne yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim bés dana am mboolem kuréel boo gis rek dinañ leen woo ak seen imaam mbon loolu sëmbul la boo xam ne ilimaan yi moom la ko lislaam gàcc bon ilimaan yi war nañu settantal seen bopp ca la nga xam ne moom mooy seen warugar ca ca ña nga xam ne ñoom lañu jiite ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di may ki nga xam ne mooy maamu shérif yi nga xam ne moo ñoo toog moo wax ne ñaar ñoo nekk ci àdduna saay leen yàlla jubalee rek àdduna jub mooy al ulamaa wal mooy boroom xam-xam yi ak borom njiit ñi ndax suñu delloo ci alquran yàllaay wax ne atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen yàlla ak yonent bi waaye nag nangeen topp seen njiit yi ci seen biiru dundinu àdduna loolu nag suñ ko waxee mooy ñi nga xam ne ñoo jiite nit ñi ci wàllu àdduna mbon xam nañ ne shérif waru garam day mu ngi koy def ci ñun lépp lu manqué walla lépp lu ci yokkat ci ñun la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dafa waxoon ne an tasilla mutaaxiran xayrun min an la abada yéex a jokk ci lu baax moo gën ñàkk jokk ci lu ñàkk jokk ci lu baax te toujours man damay wax ne fépp fu ma toog shérif li ma leen di xamal ci gox gii waxuma ne ku mel ni moom am na fi de te kuy wax na nga wax sa digganteeg yàlla ndax sirif ci boppam mbooleem lu xew ci tund bi muy jàmm muy safaan saay wu ko yëgee rek soo ko ko yëgalee soo ko ko yëgalut moom dina ñëwal boppam def intervention am xam ngeen ci dara mbooleem tiis bu mun a nekk ci tund bi sirif su ci dugalee loxoom rek yàlla saafara ko bon loolu gàcc ngaalaama ñun ci suñu bopp lañu war a ñaanal sirif yàlla ko yàlla lafal cat lafal ko it njabootam ah say doomam bii nga xam ne mooy seybaan dañu wax ne doomu ñay waruñ ko ñaanal rëy lañ ko war a ñaanal mooy gudd fan waaye arab nag dafa wax ne lu shiblu fil bari mislal asad mu ne doomu gë doomu gaynde ci biir xare gaynde la bon lañ koy ñaanal mooy gudd fan ak barke ndax barke boobu yàlla feeñal na ko ci moom te loolu li ko ko may mooy topp sa ndigalu waajur te li may digal suma bopp digay digal mbooleem doom yi suñu delloo ci li nga xam ne moom la yaakaar buy alquran alquran moo ñu wax ne wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu bil walidayni ihsaanan yàlla atte ne amul kenn ku ñu war a jaamu te dëgg ku dul yàlla waaye yàlla wax ne amul kenn ku ñu war a jox teraanga lu dul ndey ak bàyyi soo joxee sa ndey sa bàyyi teraanga pare nag képp koo ci mën a dugal nga dugal ci bon loolu moo jàpp xëy na Cheybaan topp na ay waajuram ba boobu yàlla lafal ko ci cat ba mu toll fii mu toll ndax toog nañ fii Chérif wax ñu ne fi ma toll fi mu ne nii amatuma dara lu may def lépp gàcce naa ko Cheybaan te ni ma ko ko gàccee yàlla dina ko ko yombalal te teeñ bi yàlla dina ko ko oyofal yàlla yàlla def loolu bon ndaje bii nga xam ne moom lañ fi daje yàlla mu doon ndajem barke képp ku fi ñëw tiis yal na ko yàlla dindi képp ku fi ñëw ak soxla yal na ko yàlla faj nguur gi yal na ko yàlla euh, seddal lépp lu fi doon tiis yal na ko yàlla dindi bépp yaakaar bu ñu am ci ñoom yal na ñu leen ko yàlla yombalal ba lépp lu ñu yéene réew mi ci jàmm yal na ko yàlla def ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci turu imaam yeeg mbooleem kilifa dëkk bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa barakaatu. xam naa ne li wolof yi wax naan wow du weesu koŋ waaye nag ñu wax rek ndax wax ji moom kàddu gi biñ ma ko joxee kàddu cant rek lay doon cant gi mu ngi jëm ci suñu kilifa suñu sang di Chérif Omar Aydara ndax it kat wolof dafa wax ne bu la doomu aadama defalatee bu ñëpp gis ko sant ko bu ñëpp dégg ko moom nag ñun daayira ñooro bi ñuy wax moom daf ñoo dugal ci askanu muhammadu rasulillahi ndax dañu ne ku la may soxna mbaa koo ñaan soxna ku nekk dugg nga ci askana mbaa mu dugg saw askan bon ñun mënuñu koo fay waaye ñu ngi ñaan yal na fi yàgg lool te yàlla wéral ay cëram yal na fi yàgg lool te yàlla wéral ay cëram te fu mu gestu gis ñu ci barkeb muhammadu rasulillahi maamam mu boole ñu nag ak doomu aadama boo xam ne qualité yi nekk ci moom su ma ko bëggoon lim fii tey ay mbokkam dañ naan kaar ndax dañuy foog ni dañ koy catu waaye yal na ko yàlla dafal cat yal na cat nekk ab ab noonam yal na bu mu bokk ak cat aw yoon ci barkeb Muhammadu ay maamam muy ay dara jëmm ji fees dell ku baax mu rafet di ko lool amu yërmande ak i ndimbal wallahi man ñun dey ñun dey ñun ñëy ñun dey daayiram ñooro bi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax bi ñu ko yàlla joxee waaye lépp nag jaaxaluñu ndax maamam waaye waaye waaye nag lépp jaaxaluñu lañ ndax maamam ndax yërmaande gi nekk ci moom laabiir gi tabe gi nekk ci moom adduna yëpp ko wax waaye liñ koy ñaanal rek mooy yal na ko yàlla defal cat yal na ko yàlla defal cat yal na ko yàlla defal cat yal yal nañu yàlla boole defal jàmm ngeen di am jàmm ñuy am jàmm bu déwee nag jàmm ci barkeb Muhammad Rasulullah jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam wasalaatu wasalaamu ala asratil mursalina sayidina wa nabina wa mawlana muhammad bu ñu santee yàlla julli su muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jottali suñu nuyoo ak suñu yeble bi nga xam ne suñu xalif Ceerno Cheikh Oumar Ahmad Dabakh Deme nga xam ne moom ak Sarif Aydara Oumar ya ñoom ñoo nekkoon caati Cerno Ahmad Dem bu Sokone yàlla boole leen jikko yi di benn yéene ji di benn yaakaar di benn muy benn Alaaji Ahmad Dem sirif fii mu toog Cerno Seexu Umar Xalif Alaaji Ahmad Dem moom la àndal ñu sanc réew mi si mu ñëwee moom la ko Ahmad Dem booleel mu dugg ci réew mi fépp fu ñuy dugg mook Seexu Umar ñoo fa dugg kon na suñ toogee ba tey alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Oumar nekk xalif Alaaji Ahmad Dem Sarif toog toogi maamam fees ko tepp kooku dañ koy sante yàlla xam na seen ñaan Alaaji Ahmad Dem yàlla nangu na ko bañ jóge nag daf ñu booleek ndaw di suñu waajur di suñu baay muy noo Ousmane Bokar ja di rakk ci xalif bi ñépp a bëggoon nañu waaye nag dafa nekk loo xam ne tey dafa bari ay xat-xat ci tiis dafa bari ay xat-xat ci ay xew moo tax ñun ñu dese ñu ñu ñu yebal ñu jox ñu nuyoo kàddu sëriñ bi ak xalif bi ak njobooti Cerno Ahmad Dem ñu ñëw yeggali ko Sarif Sarif sëriñ bi nee na la mu ngi lay nuyu di la ndokkal sa guddi maam fekk naa fi nag imam ratib fekk naa fi chef de village su ma nuyoo maa ngi koy texeñ di ko jeex chef de village mu joxal ma ko imam ratib joxal ko réew mi ñi nga xam ne ñooy almuxaddami ya ak muritiya ak xaadiriya ak laayeeni ak saajiliya ñëpp ñu ngi leen di jox suñu siyaar ak suñu nuyoo ak suñu ngirmaande ak suñu ñaan ak suñu sakku ñaan si ñoom ñëw nañ fi fekk fii itam ay ndombo tànk suñu doomi ndey di suñu mag di suñu maire di suñu ministre fekk nañ fi ay ndawam yu mat ndaw docteur kenn mu ngi nii toog ànd ak ay sumay rakk ñuy an wettali ko ñëw wettali sirif indi soo koon ci nuyoo si ziar fekk nañ ñu ngi jox si nuyoo chef de village mu joxal ñu ko mu joxal ko lépp loo xam ne su préfet la mu joxal ko préfet mu joxal ñu ko gouverneur mu joxal ñu ko ministère intérieur mu joxal ñu ko président de la di ko ñaanal di ko ndokkeel di ko jaale tiis bi am ci réew mi nga xam ne fa mu nekkoon bitim réew buggu réew mi ak sopp réew mi ak yëg réew mi moo tax mu dagg lépp ñëw fekkee ci tiis boobu tiis bi itam ñu ngi koy jaale réew mi puisque ñun Sokone dañ ci am cir docteur ba fa yëlif jëkkëram doomi Sokone la kon nag tiir su ko Sénégal moomee Sokone na ci oppale ñu ngi ñaan yàlla yàlla def ci ndox mu sedd di daraja Moustapha ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen won nag nañuy góor góorlu di jéem di roy puisque Sarif mii ba mu fiy ñëw alhamdulillahi rabbil alamin dafa fees tepp ci baatin ak si zahir waaye nag dafa effacé wu ñëw an ak yéen ndawlu toroxlu andi seen bugu-bugu andi seen man-man ak seen yéene ba alhamdulilahi mu tette leen ba te ngeen am li ngeen xam ne mbewte du ci dugg puisque bakkan yi dañ leen yar bakkan yi dañ leen tàggat ba lépp lu ñu am rek ñu sante ku yàlla gërëmee ko yàlla kon ñu ngi koy sante yàlla bu baax ci li nga xam ne moom la fi taxawee si zahir ak si baatin li ko imam waxee alhamdulilahi rabbil alamin wax na wax ju rafet ci sarif te noonu la demee it fépp fu sarif xëy ci ndigali doomi aadama yi ci sanj doomi aadama yi ci natt doomi aadama yi ci bugg-bugg doomi aadama ci laay xëy ci laay gont xam nañ ko bu baax xam nañ ne li ko fi indi intervention maamam moo ko fi indi waaye du lu mu am su nekkoon lu mu am rek mu ngi diggante Maroc mu ngi diggante Arabie Saoudite mu ngi diggante Dubaï wala ci mbokk ci Mauritanie naaram yi waaye kon du fi ñëw toog waaye nag njëriñ yi ak askan ak njaboot gi ak yërmande ak bëggu jàmm ak def fi jàmm ak ñu jëriñoo barkeem moo ko fi indi Chérif ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ndokkeel ba ma fi ñëw si biir lañ ko doon def barke sama am ñëw na ba si mbedd mi ñu ngi koy sante yàlla di la ko sante di ko sante sa njoboot puisque sa njoboot alhamdulilahi rabbil alamin si suma loxo lañ judd si lañ yaroo kera ba ngaa jëy seebaane di ko yóbbu Mauritanie di ko muy tàggatu ji di tarbiya suma kanam la su dellu see nag indi tarbiya ak tarqiya ñëw jàppule la jàpp sa mbir taxaw fi nga waroon a taxaw sa njàng mokku na sa yéene mat na ñu koy sante njaboot gi di ko sante taaliba yi di ko sante gox gi di jël nuyoo boobu yëpp nag dox ko suma doomi ndey muy honorable député Pape Seydou Diankom xam naa ngant rek waaye bés bu ne at bu ne dañ fiy dajeg maak moom ñu ngi fiy yandu di fi taxaw di fi jooxe di taxawel bés ba bés fa rafet ñu ngi koy sant ñu ngi sant mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nu yóbbu islam bi ma yëkkati maa ngi koy def ci turu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. di ko def ci turu monsieur le ministre de l'intérieur ak l'ensemble du gouvernement. di ko def ci turu madame le gouverneur de la région de Fatick. ci turu monsieur le préfet du département de Foundiougne. ci tuuru également délégation bi nga xamante ne bi yàlla dogal na man maa ko jiite te ñu ràññee ci délégation bi monsieur Daye Sow nekk l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Toubacouta monsieur Amadou Mané nekk adjoint au maire de la commune de Toubacouta euh, l'adjudant chef Saliou caw nekk la commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Sokone ñu ñëw fekk fi également docteur Dramé wala mu fekkuñu ñu fii mu jiite délégation bi bàyyeekoo Sokone te teewal fi monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement monsieur Abdou Latif Coulibaly euh, ñuy nuyu di ziar di ndokkeel euh, sunu baay sunu wasila sunu kilifa di shérif Cheikh Omar Aydara di nuyu surafaaw yi nekk ci tànt bi yépp di nuyu Euh, Serigne Abdoul Wahab Guèye mu bàyyi ko jagle di nuyu Cheikh Mouhamad Dabakh Dem mu teewal fii njabootu El Hadj Ahmad Dem bu Sokone ñu nuyu le chef de village de Kër Sambel nuyu imaam yi fi teew nuyu ahimma yi fi teew nuyu képp ku fekkee jotaay bu tedd bi ñu am mbette loolu nag fekkee bés bu mag bu rëy bu Chérif Omar dara jagleel maamam di yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk xaatimi nabiyina nekk imaamil mursalin te ñun ñëpp wax dëgg yàlla euh, mooy sunu lépp ba tax na ndaje bi ni mel bu ko Chérif wootee euh, te woo ci kilifa diine yi ci tund bi jaadu na ñi nga xamante ne ñii yàlla dogal na ci wàllu aada ci wàllu administration ñoom la ko yàlla dénk ñu ñëw bokk bés boobu ak moom ndaxte daje yi solo yi ñu am mooy mooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi dañuy jàkkaarloo ak la ñu bokk te duñ ko séddoo mooy njaboot gi njaboot gi euh, événement religieux yi doon occasion pour ñu waxtaan ak ñoom doon occasion pour ñu fàttali leen doon occasion pour ñu ñaax leen ah ñu gis ni jamono yi doon na wax dëgg yàlla jamono yoo xamante événement yu xaw a doy day am ci réew mi ba tax na ñun ñëpp ñu war a delloo ci sunu xel ci wàllu événement yooyu sax di may may ma masaw ah, wéy jur yi ñàkk seeni doom ci ah, incendie bi am Tivaouane ah, Serigne Dem wax na ko léegi ne daanaka am na ci soxna si ki nekk directrice générale de l'hôpital euh, donc euh, am na ay attache à Sokone mais également ñuy masaw njaboot euh, ñi wàññeeku tey jii Sokone ñaan yàlla ñoom ñëpp yàlla xare leen ajana te sunu borom wuutu leen ci seen i njaboot ñi ñàkk seen doom yi yàlla may leen lu gën loolu suñu borom mën na ko yàlla ko yàlla def wax naa léegi ndaje bi ndaje fàttali la Chérif sa maam defe naa li ko sunu borom tàggee mooy jikkoom wa innaka la ala xuluqin azimi yonent bi sallallahu alayhi jikko yu rafet lañ ko xamee ba tax na bu ñu dajee aussi war nañu gën a ñaax sunu njaboot gi ñu am jikko ñu jéem a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo seetlu ci Sénégal loo xamante ni mën na am ci jamono yu weesu daaw foon am waaye léegi ndax jikko yu soppeeku ndax peut-être li wàllu loo xamante ni peut-être dugg na si sunu njaboot tax na léeg-léeg ñuy def defin yoo xamante ni waroon na ak ni sénégalais daan taxawee waroon na ak ni jullit war a taxawee parce que gis nañ ni euh, faat bakkan yi bëri na gis nañ ni accident yi bëri nañu gis nañu wax dëgg yàlla def naka sadul noonu agression yi bëri na loolu nag keneen defu ko kudul sénégalais mën na am nag ay gan rax ci waaye nag bëri na ay sénégalais loolu nag ñu jàpp ni jikko yu soppeeku ñoo indi jaxasoo boobu ñoo indi taxawaay yooyu te du lu gën ba tax na ñuy rafetlu jotaay yi ndaxte jotaay yi doon na loo xam ne danañu wax xale yi lan moo war a doon seen taxawaay ndaw lan la war a taxawee ci biir réewam ci biir dëkkam ndaxte dooley réew ndaw la dañ koy wax ci nasaraan ñu ne l'avenir d'une nation c'est sa jeunesse donc war nañoo mën a tàggat sunu ndaw ñi war nañoo mën a waxtaan ak sunu ndaw ñi war nañu mën a ñaax ci ñu am jikko yu rafet te wax dëgg yàlla ku mel na Cherif doy na référence doy na modèle sëñ Mouhamad Dabakh wax na ko léegi ñun bi yàlla dogalee ñu ñëw fii def naa bi mooy troisième édition ñuy fekkee gàmmu gi en man bi mooy ñaareel ba ca des sama adjoint moo ñëwoon mais Cherif bi yàlla dogalee ñu xam ko ba tey euh, way jur lañ ko def kilifa lañ ko def référence lañ ko def te ci biir tund wi également muy arrondissement bi di feneen fépp fu ko fu fu diine taxaw ñu gis Cherif fépp fax digal fu dox mbokk taxaw ñu gis shérif te ku mu jàkkaarlu aussi lu baax ci yow rek la lay wax wala li la war rek la lay wax ba tax na wax dëgg yàlla ñu am mbétte loolu bi ñu gisee jotaay bi ak tànt bi ndaw yi gën fee bari euh, ñu sant ci yàlla bu baax a baax parce que ndaw ñi bu ñu gënee euh, xuus ci biir diine ji gën a def diine ji seen yitte dinañu jomb def yenn yi dinañu du rus def yenn yi ba tax na yenn jëye yi ñu dégg ci réew mi wax dëgg yàlla mën war na fee mën a gëj ba tax na ñu ñaan yàlla sunu borom jële fi loolu te mu gëj fi en tout cas dañuy ñaanal Chérif Omar ñaanal ko kilifa dina yépp nag sunu borom may ko wér bu baax a baax sunu borom may ko kàttan yàggal ko ci sunu kanam lu yàgg-yàgg vraiment njaboot gi également njaboot gi également si tànk yi ñu tegu ñaan yàlla may leen ci vraiment kattanal leen lu bari bëri ndaxte am na ku ko wax léegi xam nga xew-xewu diine tànk kanam la am amul tànk ginnaaw mën naa bi ñu ñëw cérémonie officielle loolu sax moo waral ñu xaw a teel a ñëw parce que nañ ko daan defee la ci biir kër gi lañ ko daan defee mais macha allah ren gis nañ ni yëfi yànj na lool yàlla na jëm kanam loolu nag xew-xew diine rek ak dong moo koy am at bu ne rek mu gën a jëm kanam at bu ne mu gën a rëy ba tax na dañuy sàkku ci comité d'organisation bi incha allah rabbi bu ñu yàlla mayee muy ñun di keneen ñu teewee les prochaines éditions ngeen comité d'organisation bi teel a ñëw ci administration bi ñu waajal bés bi waxtaanee ko. jël motuwaay yi war ba nga xamante ni peut-être euh, yu bëri dinañ ko xamandoo ñun ñëpp yu bëri dinañ ko doxalandoo ñun ñëpp ba yëf yi mel nañ ko bëggee en tout cas sant nañu yàlla bu baax a baax ah comme euh, ndajab ñaan la wax dëgg yàlla jotaay bi xam nañ ne am nañ fi yaakaar lool dañuy sàkku ci shérif sàkku ci surafaaw yi sàkku ci kilifa diine yi ak képp ku fi ne ñu ñaanal monsieur le président de la république yéen bi ko yàlla yen te muy lu diis muy déjà li mu jiite Union africaine te lu ko jiitu mooy li mu jiite Sénégal ak mbébét yu mu am ci réew mi ak lépp luñ ko sas te loolu wax dëggal war a jëmale réew Sénégal kanam jëmale Afrique kanam suñu borom yombalal ko ko may ko kàttan wi ñaan yàlla également hivernage bi ñu nekk ndaxte tàmbali na te daanaka aussi commencé na am ay jéya am na dans la région de Ziguinchor fu foudre rey ay nit loolu kon ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu tawféex ci hivernage bi yàlla defal ñu ci vraiment muy muy nawet bu sedd guy ba nga xamante ni kenn du ci am ndog-ndog kenn du ci am wax dëgg yàlla gàllankoor ñaan yàlla également élection yi ñu jëm sunu borom defal ñu ci jàmm defal ñu ci salaam feneen ci àddina fi jafe-jafe am réeru am sunu borom sotti fa ndox mu sedd ba àddina si am jàmm ak salaam en tout cas sant nañu sant nañ ñëpp gërëm nañu ñëpp ñaan yàlla ñu teewee ko ay at at yu bëri encore une fois sunu kilifa gi ak sunu kilifa yëpp nag. yàlla yàggal leen sunu kanam doo dolli leen wér lii la ñu amoon ci kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaatan tuxassinu biha al axlaaq wa tuyassiru biha al arzaaq wa tadfaau biha al mashaaq wa tamlau minha al aafaaq wa ala aalihi wa saxbihi wa sallim salaatan wa salaamatan daa'imatan min yawmi xalaqta dunya ilaa yawmi talaaq wasturna bayna yadayk yaa azizu yaa xalla ñoo ngay gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp yal na yàlla def jàmm ci réew mi ndax su réew mi amee jàmm na ñëpp daanu am jàmm yàlla na yàlla defal jàmm wa aleykum bi taqwallahi alazim wa usuni aley na ngeen ragal yàlla ci topp yàlla moo fi am solo ma charrun baadahu ljannata bi charr wa ma xayrun baadahu naaru bi xayr Seydina Omar mu ne amul benn jàmm boo xam ne safara moo safara moo koy mujj ëllëg du jàmm waaye amul benn naqar boo xam ne àjjana moo koy mujj ëllëg du naqar ndax fii bànneexam dana jeex naqaram dana jeex man loolu la am pour wax ñoo ngi ñaanal ñëpp nag di def yàlla yaa def jàmm ñëpp le préfet maa ngi lay wax mbiru courant encore ak mbiru ndox balaa dara xew sancata ba tànk amul courant amul ndox dara du sotti li maa leen ko wax bismillahi abdul ñaanal euh, Serif Omar Haydara euh, ku baax ku yàlla baaxal euh, ñu bokk ak moom jataay bi sàkku ci moom ñaan mu ñaanal ñu ñaanal réew mi moo ñu jox ndigal ñun nag ay jullit moom ñu alu bayt rasul sante dara dañ ciy dox rek amut sax lu ñu ciy ñàkk def te dañ koy def ak mbégte sax yal na yàlla nangu lépp lu mu fi ñaan waaye yal na yàlla nangu lépp lu fi jullit ñaan liñ fi jàng ci alxuraan tam te ñu fas yéene euh, def xatmu bi ñun ñëpp ñu def ci suñu yéene yàlla def jàmm ci réew mi sàmmal ñu sirif bi waaye sàmmal ñu sorofaaw yëpp def ci réew mi jàmm ju mat sëkk ju sax dakk amin sadaqallahu alazim allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa barik allahuma ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad kama salayta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka xamidun majidun bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسولنا النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سحو أو نسيان أو تح أو تحريف أو تقديم أو تق أو تأقير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والدلالة والطغيان ونبحنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب الخبر ومن سؤال المنكر والنكير وأكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل اللهم اجعل أنبياءنا اللهم اجعل اللهم اجعله أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة wa misbaaxana fi zulma wa dalilana fi lxayra wa munqidana fi lfitna wa asimna bihi min alzayqi walaxwaai wa kaydi alaada ya arxama arrahimin allahuma axtimna bisaadati allahuma axtimna bisaadati ajalana wa xaqiqna biziyadati amalana warzuqna bilcaafiyati gaduwana wa xuduwana wa asalana wajal xuduwana wa asalana waj'alhu rahmatan minka masirana wa amalana wa subna sijala afwika min dunubina nun alayna bisitrika bisitri uyubin bika allahumma ij'al taqwaka zadana wa siqatak wa siqatak wa siqatan bika zuq duxrana wa atiq duqrana wa atiqadana wa aminna min alju'i wal aminna min alju'i wal khawfi biladana wa saa'ira bilaadi almuminin ya rabbal alamin allahuma ballig sawaaba ma qara'naahu wa nuura ma ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأمهاتنا ومشايخنا خاصة ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi altayibiin altahirin subhaana rabbika rabbil izza amma yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa barik allahuma ala sayidina ibrahim wa ala ali ibrahim fi alaalamina innaka hamidun majid allahu latifun bi ibadihi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 TV votre chaîne de télévision culturelle et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan wi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmu yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmer la diffuser la waaye boo bëggee itam ñu filmer la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement